salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokki internet Dakar Midi nuyu nañ leen di leen siyaar di leen bëggee bu baax a baax euh, saa su ne nag dañ leen koy defal seeti ndaanaan wala ñu dalal ndaanaan seen émission tribunalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi saa su ne ak ndaanaan bi ñu leen di présenté tey nag yàlla dafa dogal ñu doxantu ba fii ci West Foire seet si fi suñu grand maestro ndaanaan bu mag kenn dootu ko présenté ci même réew ñu ko wax Ibou Touré Ibou Touré soxlawul sax may expliqué dama leen di bàyyi moom mu noyoo wax ñu mooy kan Ibou noy nañ la. Euh, salaamaaleykum sama xarit salaamaaleykum suma site télévision comme ni ko waxee Dakar Midi euh, di am mbégte bu mag di leen dalal tey aussi di gis seen liggéey mu rafet macha allah di ñaan yàlla yàlla def ci barke donc comme li nga wax nag Ibou Touré. dafa nekk euh, un artiste euh, musicien bon artiste bi nag defe naa de débarré wul rek ci musique donc euh, ma jaar ci ay théâtre jaar ci rap def musique acoustique ak tuuti variété donc di di ndongo daara buy jàng ba léegi damay wax ne mokkalaguma ndax musique kenn du ko mokkal donc yàlla def nag boobu ba léegi maa ngi ci jaar ci ay groupe yu mag ku mel ni Vieux mag Faye jaar aussi ci waa Super Kayor Jams Gadiaga mhm. donc joué ci bateau la mhm. jour bi bateau bi di chavirer man maa ci waroon joué bi ak suma group ah mais yàlla dafa dogal euh, ma ànd ak benn soxna su baax waykat ak mooy mhm. sa koro maa ngi koy nuyu de passage ñu dem tourner donc boobu léegi nag maa ngi ci maa ngi góor góorlu donc di xaar yàlla rek ndax musique moom mun naa wax ne dañ koy jàppee tool bu ñuy ñàkk ndax doomu adama bi dafa naa ne gëm yàlla weesuwul nga nekk baykat fekk àll bu ne yàmbalang nga jël sa gerte suul di xaar yàlla donc noonu la musique demee donc dañ ci xaar yàlla rek di ci sabablu saa su ne daal donc loolu daal en ci quelque sorte quoi waaye dañ ci xaar yàlla euh, di ci sabablu loolu loolu leer na mais dañ la bëggoon a laaj sa début carrière ci musique ban ban ban ban jamono la waaw man bi may débuté ci musique c'était vers euh, ay soixante-dix-sept soixante-dix-huit ci musique mm-hmm. mais bien avant musique école bi ma doon jàngee di école jàmmalaay Yoff mm-hmm. fa laa nekkoon ci jamono yi may nekk cm mu amoon benn projet bu ñu wax projet Jamalaay mm-hmm. ci laa nekkoon di def théâtre nekk ci théâtre bi ak ay troupe yu bëri nekk Yoff man jaar ci troupe yu bëri forme sama ay troupe théâtral bu ti doon gaal gi donc après di dem di dem ba si la commencé benn moment yàlla boole ma ak euh, benn groupe buy def rap ñu koy wax African People waaw bon bi ma nekkee African People jaar naa ci ay émissions yu bëri lu ci benn ni émission bi doon daw Armatan bi doon daw ak benn Mamina Diémé def fa rap jamono yi j'étais soliste bon après ñu dem ba benn moment ma bàyyi dem théâtre yi nekk ak ñoom Boy Pa Moussa bi nekk ci Youssou ak Lamine Samba bu TFM nekk ASC Doole bu parcelle. boobu boobu ci lan ngeen nekkoon ci théâtre laa doon a ngi ay série. waaw ay ay bon pas série. mais troupe ASC la woon. Ah, donc ay ñoom Pape Moussa bu Youssou Ndour ay Lamine Samba mu nekkoon suñu suñu metteur en scène. Mhm. donc ñuy dem di dem ba benn moment après théâtre bi comme affaire o ASC la bon j'ai ma dem defi musique ma dem defi rap. Mhm. bi ma bàyyee rap bi nag ci laa naa dem defi musique parce que moom bon jamono yooyu c'était pas instrumental ngay ut pour nga dem defi maquette may dem ay studio yu bëri di def ay maquette xam nga donc yàlla di dem di dem ba ma dem ci benn groupe bu ñu wax waa Salam des Parcelles Assainies suñu premier album ñu ngi ko def à 2000. mille waa waaw groupe bu musique la woon afrobeat. la lañ doon def ak mbalaax dañ doon def salaam salaam mbaa jàmm ngeen yendu yi salaam salaam salaamaaleykum mbaa jàmm ngeen fanaane salaam salaam salaam salaamaaleykum buy jàmm lañu woote bon c'était benn message mu doon sànni pour paix pour jàmm waaw wooyoon naa ci jigéen wooyoon bon album boobu Talla Diagne mu ngi koy jaay yor na kaset yi boobu léegi kaset moo amoon jamonoy kaset la donc kon loolu yàgg na waaw donc kon ku nekk ci jamonoy kaset ba léegi ay CD ba léegi ñuy utiliser ay or ay ay carte mémoire ordinateur di dugg kon loolu yàgg na quoi donc ñuy sant yàlla nag ba nga xamante ne ñu ngi ci jugu ñu ci ñu ngi ci chaque jour ci loolu la ñuy yëngu ci ñoom loolu laa ñaan yàlla suñu borom lu ma ci may mu may ma ko mhm. ci ak képp koo xamante ne rek yaa ngi ciy yëngu waaw vraiment loolu laay ñaanal ñëpp di ko ñaanal suñu daal waaw. Mm-hmm. ginnaaw ginnaaw ginnaaw album bi def nga ay clip. waaw def naa clip comme moso bi ngeen fekk sànq moo koy waaj a répété. Euh, salsa Ali Penda Ndoye moo ko way Salsa la muy wax. man ku ma ci yow man mere ma sopp naa la wul xale bi li doy nga ma waay sopp naa la wul lu njig yaay njaag yow yaay njaag mat ku ma xool ci yow man mere ma. loolu laa ci way waaw. ok loolu loolu salsa la. waaw salsa la loolu salsa am naa beneen morceau. bu may wax kàllaama. boobu damay way ci xale. parce que dañ toll ci jamono boo xamante ne nii. Euh, damay jàpp ne mbedd mi du yar. Mhm. waajur yi ñooy yar ci biir kër yi. Mhm. donc ñu am loo xamante ne suñu culture la suñu cosaan. Mhm. muy kàllaama bi nga xamante ne ni moom la Sénégal yëpp bokk di wax. muy joolaa soose wolof séeréer xam nga loolu kàllaama bu ñu moom la mhm. te boo génnee fii nga dem benn dëkk bu dul Sénégal am nañ seeni làkk bopp mhm. kon ñun suñu làkk ak suñuy kàllaama dañ ko war a xam bu baax mhm. aussi bokk ci aussi tamit di yar xale yi éducation bon morceau boobu tamit affaire éducation laa ci way ak kàllaama parce damay wax gëstu leen kàllaamay réew mi jàngal ko suñuy doom ñu jàngal ko seeni doom bu ñu màggee ñu jëriñ leen yow Masamba Masamba Cissé loolu loolu mooy kàllaama waaw loolu mooy kàllaama ma macha allah kon euh, kon ça veut dire que ne yow suñu la déggee mhm. yow nekkoo ci étape bi gars yi yenn gars ne parce jamono ji ñu toll nii ñi ñiy kaas na musique bi dafa yàqu dafa bari ñi ne woyatuñu tem ñi ne woy yeeteetul am ñuy wax ne musique bi léegi ambiance kese la xam nga kenn déggutul maanaam euh, maanaam lu yeete daal mais yow ci domaine bi nga nekk maanaam ci domaine u salsa nga nekk wala wala wala acoustique bi wala wala mbalax bi waaw xam nga dafa universelle mhm. musique bu ñu nee musique c'est ndax tey da ngay déglu musique indo sax mm. am loo ciy santir mu neex la quoi te mm-hmm. doo xam ne muy wax xamoo li ñuy tëgg lan la mm-hmm. donc moo tax man bi ma demee ba ne damay def musique j'ai préféré ma def musique variété mm. maanaam woy pour ñëpp xool ma woy pour woy luy neex benn nit dama woy loo xamante ne ku ci ku ko gis rek wala ku déggul li may wax sax di nga ci santir sa bopp surtout nag ci côté thème Mm-hmm. parce que bon li nga wax sànq dafa am léegi gars yi woyatuñu ils sont pas thématiques mm-hmm. léegi animation bi moo ëpp bon nga gis benn waay joo xamante ne gars yi dañ koy bon tooñuma kenn nag bon exemple ngay def théâtre ba mu xëy ñun dugg ci ñaari kër way tuuti ñu ne sa baat bi neex na nga dem ne maa ngi duggee studio dem dem def musique donc kon bu ñu ne musique bi yàqu na ci côté boobu la ñuy waxee mm-hmm. te ji ku ci nekk art bi nga xamante ne yaa ngi ci nekk di ko gérer waxuñu la bul dem way mais aussi da ngay da ngay sa bopp. Mm-hmm. waaw nit da ngay cadrer ci bo sa bopp ñu xam ne yow lii nga gëm ci lii nga nekk donc man ci musique laa nekk ci woy laa xam te woy laay def. Mm-hmm. waaw bon aw ma nag famille géwél aw famille mais don la ci man dama koy sant yàlla suñu borom. donc dama koy sant yàlla amu benn parent amu benn famille boo xamante ne dañuy woy mm-hmm. mais yàlla ci man la ko teg donc dama koy nangu te xam ne yàlla suñu borom. mooy jël jaam bi def lu ko neex ci moom kenn mënu ci dara waaw donc dañ koy sant yàlla nag di ñaan yàlla encore comme ni ma leen ko waxee rek télévi seen site bi yàlla yëkkati ko ba ci kaw ba mu am ay télévision télévision télévision monde entier ñëpp di ko dégg ndax lii dama cee kontaan ndax bu leen neexoon ngeen ne ñun dañuy dem seetu ko siw ñu dem jël ko mais comme que yéen ngi dugg ci biir nit ñi di jël donc di ngeen am loo xam ne dina si seen jor te mm-hmm. loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom waaye loolu la ñuy ñaan bu baax a baax. waaw waaw parce que parce que Dakar Midi mm-hmm. dafa tëddee njaxaanaay mm-hmm. moom ñëpp la fi nekkal ñi xew ak ñi xewul ak ñi wéy ak ñi nekk ci suuf di mbapat ak ñi ràmm moom ñëpp la fi nekkal. xam nga li ma wax mais tamit ay jamono daan nañ fi dégg Ibou Touré Ibou Touré ñu jékki saa yi gisatuñu Ibou déggatuñu Ibou xamatuñu Ibou ci lan la nekk Ibou Touré togru xam. lëlu jàpp njàmburam ñi naan dafa bàyyi wëy ñi naan léegi nii instant bi day commerce ñi ne ku ne di wax benn temps boo xamante ne kenn gisatul Ibou Touré ci soirée yi euh, kenn gisatul Ibou ci ay événement kenn gisatul Ibou ci lan la Ibou Touré fan nga newoon Olof Njaay ne boo xamul fi nga jëm mhm. da ngay dellu fi nga jóge gis nga nit boo xamul fi nga jëm mhm. delluwaatal fi nga jógee mm-hmm. euh, euh, reculer pour pour mieux sauter mm-hmm. donc moo walal tey di ma def suma teeg mm-hmm. làqatu sama ruq di joob ndànk-ndànk yàqamti mu ñor ba nga xamante ne tey su ma ko génnee bu ma nit gisaatee xam na kat Ibou Touré mu ngi ci yoonam Ibou Touré bàyyiwul ala accu man du ma daw wala voilà ñoo ko déggandoo yaakaar naa ni euh, émission bi neex na ba pare su fi yemoon sax mu gën a neex Ibou eh, Touré fii lañ ko fekk ci këram fii ci Ouest Foire eh, mu amal nag répétition moom ak orchestre am moom ak groupe am ñu war a répété di waajal vendredi samedi dimanche léegi nag répétition yi Olof Njaay nee na cun balaa cun bu naree neex su baxee dafay xeeñ léegi nag bëgg na ñoo xam Ibou Touré moom soirée naka la ak nan la ak naka la léegi ci biir loolu nag dañ topp leen ñu ñu dem ànd ak Ibou Touré ci kaw scène bi xool répétition am xool moom nan lay tojee ay soiréem suñu paree ñu dellu si waat sur scène yeggali waat suñu émission bi acca ñu dem yow waaw. yes yes yes waaw yéegaat nañ suñu kaw seen yaakaar naa ne ñoo demoon ñoo dikkaat wante li ñu li ñu li ñu déglu léegi léegi ni Ibou daw na suñu yaram de ci ci wàllu répétition bi li ngay paree nii. waaw gis nga de ñun lay defe naa ci liggéey la ñu nekk saa su ne donc tey nag da ngeen fi fekk ñu clavis bi ñëwul donc amaan naa yeneen instrumentistes yoo xamante ne euh, bu ma waree répété dañuy répété mais fii juste. dama fi woo claviste guitariste ak benn leket pour def atelier pour que musicalement ñu taxawal musicalement ba pare. parce que xam nga léegi tukkee waaw boo boo boo taxawee musicalement ba pare après yeneen gars ku ñëw ay percussion ku ñëw day da da ngay rek gars yi déglu ngeen def roulé donc yooyu yëpp dinañ ci ñëw fii ak fan. donc mais sant naa yàlla ba nga xamante ne nii tey ñëw ngeen assister lii donc comme li ma waxoon sànq rek. Euh, ñaan naa yàlla tey ji bu may def suma anniversaire ak yeneen ak yeneen euh, Midi Midi TV bi euh, bokk na ci ñi nga xamante ne nii vraiment dina dinaa ñëw liggéey ak ñoom parce que xam naa ne li ñuy def set na te leer na donc quant à nag répétition yi ngeen fi fekk nii nag mooy comme li ma wax rek gars yi bëri ñëw ñu tey quoi mais c'était juste rek pour mën a caler chaque jour aussi di fàttali nit ñi nii chaque vendredi maa ngi Mirado euh, maa ngi tradition Liberté 6 waaw bon immeuble Ferdinand Coly samedi maa ngi Mirador euh, dimanche maa ngi Terra Nostra donc yëpp nag after work la day commencé vingt une heures vingt deux heures euh, une heure du matin et demi mu tas waaw donc may invité ñëpp nag képp koo xam ne ne gis na ci site bi lii mu ñëw jàpp ci waaw ndox ñun ay musiciens lañ te amuñu lu dul musique donc képp koo xam nga bëgg nga féexal sa xol nga bëgg a ànd ak pour reer wala affaire donc boo ñëwee foofu dinañ la teral defal la musique bu neex ñëpp bëggee ñu ñibbi ci jàmm ak salaam daal. waaye incha allah am nga am nga autorité yu lay jàppale wala yow sa moyenu bopp ngay demee. waa man sama moyenu bopp laay demee ak suma ñaari soxna yu baax yi ma am ni oh, Leyti Ndiaye maa ngi koy nuyu si ko gërëm di ko sant di sant euh, Aji Badiane kii suma deuxième femme ngeen ñëw nii këram fa laa tey. Euh, maa ngi koy remercier moom bu baax ndax moom it kuy jàpp si sumay bagage la moom suma première femme mm-hmm. mais lépp nag suma première femme tamit jàpp na ci lu bëri bëree bëri mm-hmm. ndax tey bu ma tollee fii ci musique lu ci bëri moom moo ci moo ci taxaw waaw premier dame lay ci njaay donc kii tamit yàqu ci dara mm-hmm. waaw bu mu ñëwee moom it def na li nga xamante ne mooy nécessité nécessité bi quoi gis ngeen tey jii suma gars yi bu ñu waree ñëw day préparer ay fata ay affaire pour xam nga gars yi nekk à l'aise donc kon sant yàlla daal waaw sant yàlla daal sant yàlla di leen remercier waat bu baax di remercier sénégalais yëpp ak ñi nekk Sénégal ak ñi nekk diaspora donc man nag pour ku may jàppale moom defe naa ne su may moyen bopp laay demee mais képp koo xam ne war na mën a jàpp jàppale Ibou Touré maa ngi lay tàllal sama loxo maa ngi lay tàllal suma loxo di la wax na ñëw jàpp ngir yàlla rek tax waaw loolu daal laay ñaan daal léegi label la seet woon waaw label bi moo seet si pare naa man pare naa bu yàgg a pare naa bu yàgg a yàgg yàgg maa ngi maa ngi ay morceaux yu dul jeex maa ngi ay morceaux yu dul jeex donc label bu pare pour jow ak man rek soo ma contacté si suma email wala si suma numéro téléphone bon di nga ma jot daal waaw di ma jot quoi waaw waaw ok kon kontaan nañu euh, yéen ñi ñu doon déglu ñu seetaan euh, kër ndaanaan yi ëttu ndaanaan tey ñu ngi fi amaloon maestro Ibou Touré yaakaar naa ne jox na leen rendez-vous vendredi samedi dimanche man tamit dama leen di jox rendez-vous jox leen dig daje ba beneen yoon ci beneen daanaan incha allahu rabbi kontaan nañu Ibou yow ñoo yow ba géej gi fer incha allahu rabbi ñoo ngi sa ginnaaw kontaan nañu jaajëf jaajëf grand bi merci beaucoup jaajëf jaajëf